mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci ndigalu cheikh al xalifa sëriñ babacar si mansour ak njabootuk cheikh sidi aji malik gi yëpp oustaz sidi ahmed mbay ak waa daayira al birru wal ihsan ñoo leen di yëgal seen conférence bu mag boobee ñuy amal foofee ca daaru luxus nekk ca morolan le 16 juillet lay doon foofee ca daaru luxus mbokk yi programme bi nag nii lay demee à partir de 15 heures danañu fa amal conférence bu mag jagleel ko chérif ibrahima aydara moomee di atijaaniya nekk muxaddamu alaaji abdul aziz si dabaax mi ñuy yooyu te noppee guñu waaye animation ba Chérif Fall moom moo yor ak groupe dana fa teew moom Chérif Ibrahima Aïdara Atijaniya waaye sous l'égide de oustaz Imam Mohamed Mbaye ak oustaz Sidi Ahmed Mbaye Atijaniya mbokk yi dana fa teew daayira kër Yuusu Jenn dana fa teew daayira kër Serigne Jibi Combaan dana fa teew daayira dëkkandoo jàmm ca gën ñooñu nga xamante ni nag ñoom la ñu ko patroné dina ca bokk monsieur Babacar Combaan xadaratu Seydina Sidi Ahmed Tidiane Chérif foofee ca Amokat El Hadji Imam Ndiaye Dabax dana fa teew Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour caam bu Thiam sono dana fa teew Mawlaay Abdoul Aziz Ndaw dana fa teew Mawlaay Abdoul Aziz Thiam dana fa fa teew mbokk yi mi ngi noonu waa biir waa daayira al biiru wal ihsan ñoo leen di yëgal seen ndaje moomee ñuy amal di conférence religieuse le 16 lay doon foofee ca Daaru Luxus ca Morola